asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi nuy déglu fu ngeen mën a nekk ci àdduna bi noo ngi leen nii nuyoo fii ci Touba al Mahrousa ci Darul Minan di leen siyaare bu baax di sàkku ci yéen ñaan te di leen ñaanal ñaan suñu borom boole nu defal tawfiq te nangu sunu liggéey bi te boole ko ci liggéey bi mu doon liggéeyal bi mu doon liggéeyloo sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu kon tey la suñu ñetteelu bind ci wàllu tabaski gi ñuy waajal mooy seen bind yi ñuy jàngat di ko tuddee yóbbalu tabaski kon démb ñëwoon nañ ci àtteeb tabaski moom ci boppam buñ la ko laajee nga mën koo xam te mooy sunna mu akkada mooy sunna su dëgër soo xam ne yonent bi dañ ko ko digal ndax umirtu la wax yàlla moo ko ko digal ba noppi ne ko sunnaal naa ko ci sa xeet wi mu daa ci soññee daa ko taxawe euh, kon jàngoon nañ démb àtte bi démb kon waxoon nañ ki mu war waxoon nañ ki mu war mooy képp koo xam ne as gor la te léegi daanaka ñëpp ay gor lanu gannaaw ba mu nekkee gor ba noppi dañ ciy sart mu bañ a nekk màkka bokk ci aj màkka ga ndax kon su boobaa kooku hëddi yu moo koy war waaye tamit ñu ne ku ko man te ku ko man waxoon nañ mooy koo xam ne nekkul ci ay jafe-jafe yoo xam ne bu jëlee soixante-dix mille am jënd ko xarit bu ëllëgee mu am problème mu ordonnance wala problème mu courant wala problème mu ndox wala problème mu dépense kooku mënu ko su ko defee nag kon kuy tukki ak ku tukkiwut yëpp war na la kuy tukki ak ku toog sa kër kon yow mi nga xam dangaa tukki te bés ki yàlla dogal nekkoo sa kërit jàppal ne war na la boo ko rendee fa nga nekk baax na boo ko rendiloo sa kër yóbbante ñu jëndal la xaar yéen ñu nekk bitim réew yóbbante ñu jëndal la xaarum ñaari fukki junni muy sam xar ñu rayal la ko kooka ba tey baax na waaye daal war na la war na góor war jigéen nit kon foofu daa wuteek asakay muurum koor nga xam ne dañuy dañuy wax ji dañuy wax góor gi ne ko yow yaa ko war a def waaye yaa ko war a defal képp koy dundal te ak ñi ngay dundal far force sa soxna ci la bokk moo tax yaa ko koy warlul moo tax même bu amee xaalis bu ko neexee bañ ko def bu dee tabaski nag daa wuute moom dañ la ko digal yowu jëkkër ji niñ ko digalee jabar ji tamit benn rek la ko ko ci am da ko war a def sa doom yeet képp ko ko ci man war na la bu fekkee ne eh, am nañu boroom xam-xam yi nee nañu ak donte sax daa nekk xale boo xam ne am na xaalis te majeur ba tey war na ko ndax sart yi déggu leen ci ñu ne baalix baalix bokku ci kon xale bi nga xamne niki ku bayam fatu, baye ko ab xaalis bu bari kooku bu tabaski jote dañ ko wara jëndal xara rayal ko ko dañ ko sopp nak manam dañ ko sunnal nak waye du farata bu ko dara bu fekke ne nag euh, nit ki kat ay domam dañoo nek xale nek ño xamne ne ñak kon mom mo leen wara yomi tabaski kergi, leel yow mi borom kër gi da nga am ay dom yo xamne ay xale lañu amagunu xaalis kon su boobaa ba keroog ñuy nekk mu kallaf yow yaa leen yow lañu ñu sunnaal ci yow nga tabaski waa leen leen naka noonu sa yaari waajur bu fekkee dañoo ñàkk ñoom it yow la yow lañu ñu gàll sa kaw nga tabaski waa leen leen ci anamu sunna nag laa wax nga tabaski waa leen leen nga tabaski waa leen leen bu fekkee ne kon am nga ko yàlla may la xéewal ñoom ñëpp nga jëndal leen ku nekk xar ñu tabaski bu fekkee amoo nag nga yéenewaale leen ci sa xar mi loolu mën naa nekk su boobaa nag mën ngaa yéenewaaleel sa soxna moom bu fekkee amut mën nga koo yéenewaaleel wala sax am na teewul mën nga koo yéenewaaleel loolu dinaa ci ñëw incha allah kon ci wàllu ki boo ko seetee bokkaate mënu cee am bokkaate mooy lan mooy ni ñuy def léeg-léeg di ko def ay tamxarit mooy tong-tong ñu koy wax tong-tong maanaa kër yëpp kër gu nekk joxe 10000 walat francs wala 15000 mu mat 250000 ñu jënd ci aw nak ray ko ku nekk ñu jox la dara loolu tebeski mënu ko xana ñu bëgg lek yap mom man dañ ko def ngir lek ak li ngir lek ndawal waye bu dé ngir am yoolub tabaski loolu mënta nekk ay nit ñoo bokk men xarum tebeski nga xam bokk déedéet loolu mënta nekk bu dé mashabu imam Malik bu Imamu imam Ahmad wala Imamu abi abi Hanifata ngeen balma ak limam Shafii ñom nenañ lolu loolu dagan na ci kaw bu fekke ne rek wul juróom-ñaar juróom-ñaari nit nee na kenn ak ñaar ñet ñent juróom juróom ben ba juróom-ñaar man nañu tek bokku men xar wala ñu tek bokku wenn nak ndax tabaski nak dañ koy nak dañ ko dañ ko ci def dana ci ñew bu ñewé ci walu xar yaak ya ci ajo nee na daal li feeg mat ëpput juróom-ñaari nit man nañ ko ba de imam malik nak dedet ku nek rek sa xarum bop ngay tabaskee legi nak mën ngaa yor sa menn xar nga yéene waale ci ñi nga xam ne ñooy waa kër gi nga yéene waale ci mooy ñi nga xam ne ñooy waa kër gi su boobaa nag dafa am ay sart maanaam li tax sa menn xar mi nga mën koo rey ba noppi sa njaboot am yoolu tabaski say doom sa soxna am ko sa ñaari wajur am ko li tax loolu mën a nekk loolu ñaari sart rek la sart bu njëkk bi sart bu njëkk bi mooy ñi nga mën a defal loolu mooy ñu la jege kon mënoo kaa defal ab jàmbur ñi la ñi nga mën a defal loolu nga yéenewaale leen ci sa xar mi nga xam ne ñoom sax boo reyee sa xar mi rek yéenewaale leen ñoom tabaski da leen wàcc day mel ne rey nañ xar ñaari sart la sart bu njëkk mooy ñooñu fokk dañuy nekk mbokk sa say mbokk yu la jege say jege ñaale mooy lu mel ne sa sa ndey sa baay euh, yoo xam dañoo ñàkk wala say doom yoo xam ne amuñu ñoomit it wala sa soxna dégg nga wala képp koo xam ne dundal ko daal daf laa war. képp koo xam ne dundal ko dafa laa war kon mbokk gi mooy mbokk gu la jege ci wàllu deret wala muy mbokk goo xam ne wàllu sëy la loolu mooy sart bu njëkk bi ak na nekk koo xam ne dundal ko dalaa war moom daal na la jege wala bi nekk koo xam ne dundal ko dalaa war ñaari sart yi bu xasee ba am rek ñaari sart yi bu xasee ba am rek mën ngaa rey sa xar yéene waale leen ci ñoom ñëpp te su boobaa ñoom ñëpp ku nekk dafa mel ne rey na xar ci wàllu tuyaaba ndawaat gi nag moom eh, ku ne xam na ne sam xar la yaa ko jënd waaye yool bi ku nekk dana mel ne dana mel ne sa soxna rey na xar dana mel ne sa doom rey na xar euh, bu fekkee nag ki nga bëgg a yéene waaleel kooku dundal ko dalaa warut kooku dundal ko dalaa warut niki kan niki koo xam da nga koy dundal rek ngir coobarewu niki say say mag wala say doomu mag wala sa maam wala sa euh, rakki baay wala sa magi baay kooku dañ ci yokk beneen sart beneen sart bi mooy lan mooy fokk day dëkk ak yow kon kooku moom day boole. ñetti sart bu ñëkki bi mooy na la jege na nek sa mbokk mu la jege ñaareel bi euh, moy na fekk nga di dundal ak donte dundal nga koy dundal sax la neex xam nga ñu njëkk ñe nee la dundal da la war mom ñom ñaari sart lañu moy moy nañ la ta nga leena dundal dundal go xam la war ñi nak mom nañ la ak donte da nga leena dundal dundaluk coobare ku ne xam ne sa rakki baay wala sa doomi mag wala sa doomi nijaay wala sa nijaay ci dundal leen waru la waaye boo ko defee nag surtout fii ci aada Sénégal day rafet ñooñu dundal koo nga leen dundal buñ ci boolee dëkk ak yow ci kër gi nga dëkk mën nga leen yéene waaleel waaye bu fekkee dëkkuñ ci kër ga nag kooku mënoo leen a yóbbaaleel kon foog foog ñaari sart yooyu day day daje su ko defee nag kon lii nun Sénégal bu fekkoon ne dañuy tëral suñu biir ci diina dana yomb lool ndax léeg-léeg ngay gis koo xam ne day am ñaari soxna soxna su nekk danaa ko man sama yónniw ci nag ma indil samam xar mu mel ne xar mi soxna si nga koy jëndal loolu wax waxoon naa ne la ko defee nga daal dem ndeysaan boo ko mënee boo ko mënul ndax nee naa tabaski fii defuñ ko ngir jaamu yàlla waaye dañ koy def ngir affaire puukare wala ngir affaire aada wala ngir affaire ku nekk ne danga may jox samam xar mel ne xar mi yaa ko moom may fàttale ne xar mi yàllaa ko moom tabaski kenn dox naan rayal naa sama soxna am xar déedéet rayal naa yàlla am xar la ñuy wax yooyu yëpp ci erreur la su ko defee nag soxna su nekk ne man sama yónneew ci ndekam jox nga kee danga may jox xar yi soxna yi moomuñu ko kon soxna yi xar mi seen borom kër di rey moomuñu ko yéen moomu leen ko xar mi moom daf koy rey pour jaamoo ko yàlla borom kër gi na xam loolu bu ko deful ngir jaamoo ko yàlla rek dana rey xar ba noppi tabaskeem niil na kon nag loolu lu mat a lu mat a sàmm la kon loolu moom lañ doon indi ci yooyu nga xam ne lu am solo la kon tabaski menn tabaski ay nit mënuñu koo teg ku nekk teg xaalis di ko bokk waaye ci wàllu tuyaaba ji nag moom mën nañ koo mën nañ ko bokk incha allah ci sart yii ma ko waxee <coughs> kon ki yor ñetti soxna yor ay doom men menn xaram moomu mën na ci yéene waaleel ñëpp même bu fekkee ñaari kër yu bokkut laat mën naa bu jëndee am xar mu baax mu mag xar mu baax mu mag wala mu jënd aw nag wala lu mën a jënd bu ko rayee mën na cee booleel soxnaam sa nekk fële ndax moom dundal ko daf ko war. mën na caa boole soxnaam mën caa boole ak njabootam mën kaa boole lépp ray ko ñoom ñu daal koy xéewloo mu jeex waaye bëgg a teg nit ñi fitna nag kook nag aggul foofu kon xam naa bu subaa ñu ñëw ci wàllu léegi nag man xar moo mat tabaski ak ñaata at lay am ak euh, dégg nga yan sart mooy daje ci xar mi su ko defee ba nga xam ne rek booy jënd xar da nga mën a xam xar mi ngay jënd incha allah in uridu ila al islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh